de déedéet noo xam nga mbirum suuf dafa compliqué man mii di wax a yéen bis bu nekk maa ngi dem di wuyu ci ay litige foncier te loolu li ko mën a artu rek mooy ñu teeyal sunu liggéey sellal sunu liggéey leeral ko ba nga xamante ne si njumte bi du bare donte mënul ñàkk nag mais ñu fexe ba mu bañ a am te loolu tamit mënu ànd ak gaawantu. loolu ak tey la ak saytu te looy tey looy dis saytu day loo xamante ne si du mën a gaaw mais nag li ci am solo tamit mooy commune boo xam ne dafay joxe ay adjoint maire Mamadou Ba ànd ci commission domaniale bi damay rafetlu vraiment ndax boobu ba léegi tamit yàgg naa ko wax coow li mën na bare waaye mosuñ dem tribunal bañ daan ne dégguma ko man tey laa dégg ay nit di ko wax ay affaire délégation spéciale non non loolu demeewul noonu quand même ci benn république lañ nekk am na nu muy doxee du neex waaye toog sa kër rek def say gént rek di wax lu la neex

Euh, jàmm rek moo am ci commune Tivaouane Peulh Niaga te jàmm rek moo fiy am. fu ñuy dox dox ci kaw tali bi accident di am ñu ne li yëpp maire la loolu muntul continuer moo tax yàgg nañ ci waxtaan c'est que jëfe bi euh, moo mooy mooy tàmbali. ñu ngi ci waxtaan nag wax dëgg na yàlla lépp loo xam ne mën na ko yombal doomu aadama yi ñu ngi koy dox waaye nag kenn mënu def omelette te doo toj ay nen fa lañ toll. li am solo moy ñu xamne ne que incha allah rabi lépp lo xamanteni ci daf ko laaj dinañ ko def dimbal bu mu laaj dinañ xol luñ ci mën ñu def ko mais li ci gëna am solo moy ne nit ci xamne ne que bu fekkanteni dañu occuper voie publique bi dañ ko wara dégager parce que dañ ko bëgg a defar jëmbat ko ay garab defar ko ba ma sha allah ku dugg ci commune Tivaouane pour ñag xamne tali yi rafet na. xam mesure d'accompagnement du ñag du ñak mais dans la mesure du possible moy lo xamanteni ci si xam nañ ne que mën na nek lépp lu mën nek incha allah danañ ci taxaw def ko. sant yàlla bu baax tay di leen di gërëm gis ngeen yàlla dëgg la bëgg dëgg fu mu xol yëpp ay ànd bokk benn heure loolu moo fi xewaat tey gis nga werante dafa baax ci ànd waaye werante wu dëgg te ñun werante dëgg lañu am am na ñoo xam ne jàpp nañ nekk li seen gis-gis du woon ni ma doxalee am na ñoo xam ne jàpp nañ nekk ni ma doxalee jaadu na waxtaan nañ ko tey ñu ñëpp juboo nañ voté nañ am nañ unanimité maa ngi sant ñoom ñëpp ndax ñoom ñëpp njëriñu askan moo leen tax a jóg ñoom ñëpp taxawaay taxawu askan bi ba yenn coono yi wàcc commune Tivaouane Peulh Niaga nag mooy commune bi nga xam ne moo gën a gaaw a màgg ci Sénégal jafe-jafe fi am na yaakaar incha allah ne que lu waay mën a wax lu waay mën a wax bu commune tuwaan pël ñàgg baaxuloon du màggee ni muy màggee ndakaaru sénégal gi yëpp ku jóg tey ne la fii la bëgg a dëkk si lu tax c' est parce que dañ fi fekk loo xamante ni si lu mën a lu rafet la lu mucc ayib la moo tax kenn ku nekk bëgg a ñëw ànd ak ñoom jërëjëf ma lay gisam